jigéen ñi ak yàlla su nettali tey ji mooy yéesu def na li mu dige ne dina yónni xelam nettali bi mu ngi cosaanoo ci esekiyel saar fanweer ak juróom benn aaya ak juróom benn ba benn aaya ñaar fukk ak juróom benn ba ñaar fukk ak juróom ñaar saar ñaar aaya ñaar fukk ak juróom saar ñeent aaya benn yowana saar fukk ak ñeent aaya fukk ak juróom ba ñaar fukk ak benn ak ñaar fukk ak juróom juróom benn saar fukk ak juróom benn aaya fukk ak ñett ba fukk ak juróom jëfi ndaw ya saar benn aaya juróom ak juróom ñett saar ñaar aaya benn ba ñaar fukk ak benn ab yonent bu tuddoon esekiyel neewoon na jamono ngi ñëw yàlla dina def xelam ci ñi gëm beneen yonent bu tuddoon yowel wax na ci mbirum jamono joo xam ne yàlla dina sotti xelam ci mbooleem ñi gëm yaxya dafa naroon a fees ak xel mu sell mi dale ko sax ci bi mu juddoo xel mu sel mi moo waroon a def maryaama jur doomu yàlla aj kawe ji xel mu sell moomu moo wàcc yéesu bi ko Yaxya sóobee ci ndox te moo ko yóbbu ca màndiŋ ma ngir seytaane fiir ko fa yéesu wax na ay taalibeem dinaa ñaan baay bi mu jox leen beneen dimbalikat buy nekk ak yéen ba abadan àddina du ko mën a nangu ndaxte gisu ko te xamu ko yéen xam ngeen ko ndaxte mi ngi dëkk ak yéen te dina nekk ci yéen ku ma bëgg dina sàmm sama kàddu sama baay dina ko bëgg te nun dinañu ñëw ci moom te dëkk ci moom yéesu dellu newaat dimbalikat bi dina ñëw mooy xel mi jóge ci baay bi te yor dëgg gi moom nag moo may seedeeli noonu ni yéesu doon delloo asamaan mu ne ay taalibeem xaar leen ba xel mu sel mi wàcc ci yéen noonu dingeen am doole yàggul dara gannaaw bi yeesu delloo asamaan taalibeem yépp dajaloo ci benn bërëb jekki am riir mu mel ni ngelaw lu mag luy wol jóge asamaan fees kër gi ñu toogoon nit ñi gis lu mel ni ay làmmiñu safara yu ñëw tong ci kaw ku nekk ñoom ñépp ñu fees ak xel mu sell mi te ñu tàmbalee wax ci yeneeni làkk te xel mu sell mi di leen dimbali amoon na ba tey gannaaw màggalu bésu jéggi ba ay nit ñu bari ñu ragal yàlla ñu desoon Yerusalem ñu ngi jóge woon gox yépp ci àddina bi nit ñi déggee riir ma nag ñépp dajaloo daldi waaru ci li ñu leen dégg ñuy wax ku nekk sa làkk ñu ne nun ñépp ñu ngi leen di dégg ñuy yégle màggaay yàlla ci sunuy làkk ñuy laaj ci seen biir naan lan la loolu di tekki waaye teewul am ñu leen di ñaawal naan dañu naan bii Pierre kenn ci taalibe yi jóg taxaw wax ak mbooloo ma ne leen li ñu gis te dégg ko matal na li yonent yàlla yowel waxoon bi mu nee yàlla nee na ci bés yi mujj yi dinaa tuur ci sama xel ci kaw nit ñépp seen xeet wu góor ak wu jigéen dinañu wax ci kàddu yàlla waaw ci bés yooyu dinaa tuur ci sama xel ci sama kaw jaam yu góor ak yu jigéen boobu nag ku woo borom bi ci aw turam dinga mucc xel mu sell moomu ba tey jii mu ngi sargal yeesu ci ni mu koy seedale xel mu sell mi mu ngi tey jii ci àddina si di yey nit ñi ci seeni bàkkaar mooy xelu dëgg gi fii la nettali bi yem nanu jàng aaya bii kon nag gannaaw xelum yàlla mi dekkal yéesu ca néew ya dëkk na ci yéen dina tax seen yaram yu néew doole dund ci kàttanu xel moomu dëkk ci yéen waa Room saar juróom ñett aaya fukk ak benn